te pourtant état ko moom c'est-à-dire que gis coowal euh, presse bi ne la presse dribblée par Macky Macky daf ñoo njuuy wax bi yëpp loolu la non wala <laughs> loolu wax bi yëpp loolu la tey moom ba ñëw woo ñëpp ne kaay leen dalal seen xel dalal waaw boo ko ko boolewul sa yéen sant yàlla ngeen wax rek. mais xam nga lan mooy problème. boolewul amuñu ko est très profond le problème est très profond. c' <laughs> est hmm? vrai à Tébor Faye. Ah. suñu entreprise de presse yi. Hmm. financièrement. Hmm. mais ñoo amel. Ah. la ñu amel nag coow li mooy mën naa doon noonu la wala wàññeeku na wala demeewul noonu. waaw ah. waaye lan la président waxoon. dama dama bëgg Macky Sall ñu baal leen dette fiscale dette mooy bor bi ngeen ameel état à hauteur de quarante milliards patron de presse yi xuloo tey ñoom ñoo tàcc woon jour boobu ka tàcc woon na ni baal nañ ma bor mooy am naa bor ah man logique rek laay xool je parce sur les faits ñoo génn ne ni alhamdulilah président nee na suñuy bor baal nañ ñu ko pour quarante milliards waaye da waxoon noonu rek daf ñoo njuy wax waxam ñu ne ko d'accord président moo wax comme président moo wax rek mooy dina am mais far ci diggante bi am soppeeku bu am mooy binduñu ko fenn votewuñu ko assemblée nationale. ndax dafa am loi de finances rectificative ñu ne ni aman parce que booy def budget ca assemblée. dañ naan war nañoo am quarante milliards yu jóge ci presse DGID de de l'économie et des finance wala ministère des finances dina ñëw ne ni ci sama xayma war naa am mille milliards mille milliards yooyu cinquante milliards mu ngi jóge fii lii mu ngi jóge fii lii mu ngi jóge ci ñun am na quarante milliards yi war a jóge ci presse bi loole yëpp mu xayma ko ñu ne léegi budget boobu buñ ko jotee lii la ñu dugal hôpital lii la ñu dugal fii li ñuy dugal feneen ak feneen ak feneen président Macky Sall ne nañ leen baal seen quarante milliards yooyu waaye yoon ba mu war a jaar yëpp jaaru ju ci lenn mën a ne wax nañ ko ñoom euh, waa SEDEPS mooy jéem a négocier ji ak président bi fa ne bi fi ne tey jéema waxtaan ak moom ne ko nag ah président ñun suñu secteur jafe na trop te ñun dañ koy dund ñun yi nekk fii nii leeral dañ koy dund ñu yónnee la benn. Euh, ni fisc di yónnee DGID yónnee la benn kayit ne la da nga war a fay mu leer na ni yow da nga daan am publicité peut-être amatoo publicité danga doon am ay convention amatoo convention yooyu wala dagg nañ convention yi euh, kër gi sonn na tamit de mais nag bon yenn saa yi dafa am ñuy njëkk yuuxu ñu jàppee ni mbirum politique peut-être mu ngi ci c'est un droit ñu xalaatee noonu mais man je le dis si ay fee lay laay ñëw la nekk ca gannaaw fee yi nag duma ci sori mais ci fee yi ma gis mooy ni dañoo demoon te du ñëpp ñun woowuñu ñooñu ba ñuy dem ci ca ca Macky bi ñu dem ci Macky Sall convié wuñu ñu woowuñu ñu ñëw leen ñu ngi dem ci Macky ñu dem am ci moom ne ni dinañu fay dinañu baal entreprise de presse yi quarante milliards léegi que amul loolu ñu ne ñu yéen ñëw leen ñëw leen ñu yuuxu. non il faut qu'on soit logique ba ngeen di dem tàggu leen ñu woowu leen ñu boolewu leen ñu ci peut-être que fay ba sax mën na am sax ñun duñ ci bokk léegi que coow am na ngeen ne ñëw leen yuuxul leen ñu il faut qu'on soit également ci suñu coopération ci suñu suñu suñu jëflante suñu biir nañu dëggu également xam nga lan mooy dëggu bi gis nga taximaan yi nekk di am seen seen seen seen ensemble ba boo laalee benn taximaan laal nga taximaan yëpp parce que nañoo dëggu ci seen biir ndax seen biir dañuy toog ne ni yow taximaan nangam na nga doolee baaxul am seeni réseaux sociaux seeni whatsapp ak yooyu di waxtaan ci seen biir ñu am benn kuréel bu ñu woowee SEDEPS ne ni yow yaay patron de presse yëpp euh, ci yow la ñu nekk ma jàmbal yaa njiite woon na ko maa ngi koy suivre bëkki démb wala démb sur TFM la mu wax dafa leer dafa ne amel nañu waaye ñun li ñuy dund metti na mënuñu ko mbirum politique ak yooyu même bu ci raxee sax mais ñun c'est vrai que ñun presse amel nañu mais nañ koy dundee ak la ñu waroon a jot jotuñu ko pour mën a fay te leneen mooy nañ leen jàppale ci tëj yi ñu tëj seeni compte amul sens jamono ji nañu seet na ñuy négocier presse bi tamit na négocier parce que lépp loo gis waxtaan lay noonu négocier nég dañoo dem ci Macky Sall négocier pour ñu dindi quarante milliards yooyu ñun suñu jamono dem nañ ci maître Abdoulaye Wade négocier ak moom pour mu tegal ñu loo xamee ne ñun ñi doon ay reporter dinañ ci mën a gis suñu bopp parce que boobu temps Synpics euh, sa fi nekkoon amuloon lenn lu ñu mënoon a ñun jeune reporter bañ demee mu ne ñu naa leen lijjantil ba ngeen xamee ni mais ba tey jii nii ca bañ fay dem ba léegi bi ñuy créer convention des jeunes reporters ba tey mais chaque année nga gis benn élève boo xamee ni Euh, kii euh, journaliste boo xamee da ngay dem ñu may la bourse pour nga dem euh, gën a defar sa per sa kii sa formation te convention des jeunes reporters moo ñu ko indi loon donc yooyu yëpp lan na waxtaan lay doon mais gis nga bi c'est valable du côté de l'État comme du côté de l'administration bu mu am xëcco ci jamono ji ndax ça ne sert absolument à rien du tout la presse est en danger sur les plans pas seulement sur le plan surtout d'abord sax sur le plan économique parce que tey man li may wax ni solo doon damay jaay information mi ñu ne balaa ngay ñëw leeral da ngay abonné wu ni nga gis kenn mooy abonné wu jël lépp luy contenu wu leeral partager ko ci réseau sociaux yi ba leeral moom buy fayeeku benn abonnement lay fayeeku te pourtant boobu cent personnes ñu ngay bénéficier wu ci abonnement boobu ñii de l'espoir xam nañ ko da wax pay per view nga gis man maay jënd paas pour seetaan làmb eh, tafaati nag diw mu jël ko def ko en direct ñëpp di seetaan ñëpp di seetaan léegi promoteur bi jaakaaroon ni mën naa am ci pay per view boobu aslëf benn benn la ci am mais sans dinañ seetaan làmb ji te duñ fay dara. donc y a tout un système boo xamee ni c'est à revoir. mais pour le revoir nañ toog waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal waaye àtte bor moom. fay wala négocier. leer na leer na nañ waaye aussi tam bëggoon naa ñu dellu si at surtout euh, Pamakora ak bu fekkee da am loo ci bëgg yokk ci mbirum. Euh,